tey nag danoo ñëwoon di waslu ak ci liggéey bi ndax jamono bi dafay jamono boo xam ne bii bu jaxasoo la yàlla dogal ay tawat jóge ca bitim réew dugg law ba réew ci laal réew mi tawat yooyu nag boroom xam-xam yépp wax nañ ne tawat yu soxor la ju gaawu doxinam te mën a yàq Euh, li ma ciy tënk nag lu tuuti lay doon mooy li nga xam ne boroomi xam-xam wax nañ ko di njiiti réew muy président bu États-Unis ak président bu France ñooñu bu ma leen lime rek doy na kenn ku ci ne jël na alal ju baree baree baree bari namoon ko yóbbu feneen ci liggéey ci at mi bileen jàngoro ji bettee dañ ko fab def ko ci ngir xeex ko ak jàngoro jooju milliards yu bari la Amérique li ñu natt mat na fukki budget Sénégal fukki at li mu war a yor senegal pour def ko ci France def na lu xaw a mel noonu ak wàññi tax yi mu mel ne tey jàngoro ji dugg ci àddina bi réew mu ne bu doon fii ak ñaari weer la jeex sa budget li nga nattoon ne danga ko doxale at mi vingt cinq pour cent dana ci manqué bu demee ba àgg ci juróom benn weer xëy na dana dem ci lu jégg fanweer ak juróom jëm kaw ci li nga xam ne nattoon nga ko am ndax économie bi dafa taxaw kon bu loolu amee te jàngoro ji dugg biir Sénégal te ñiy wax nee nañu fi mu toll ci fiñ koy dégg ci réew mi ndakaaru ak tuuba ñoo ci gën a siiw Touba nag di dëkku diine di dëkku xaadimu rasul di dëkk boo xam ne mbooloo mu bëree bëree bëri ñoo fiy dugg te doo xam fu ñu jóge ndax yaakaar sëñ Touba jumaa ji nu toog di néegub yàlla di kër sëñ Touba sëñ Touba ñaan ko ba yàlla jox ko ko ay junni junni nit ñoo fiy jullee semaine bu ne kon lan moonu war mooy topp ci tànki sunu sëriñ muy sëñ Muntaxa mu Basiiru xam ne dafa yëkkati alal ju bari démbalee ko réew mi muy ñaari téeméeri million loolu kenn mosu koo dégg bi mu ko defee it mu digal ñun ñëpp kenn ku ci ne la nga man la tollook sa doole nga jàpp ko ci liggéey bi mu mel ni tawat ji nag pour ñu daw ko ak xeex ak moom ak cet da cee am solo kon mel na ne lu demee ne eau ak paan yooyu nga xam ne yi day ànd ak sat la ndax raxasu ba pare keneen raxasu ca amul solo lu mel ne saabu muy saabu yi nga xam ne ordinaire la ak gel bii ma tiim xam ne moom laa yor indi ko fii te commandé naa ci quantité bu am solo suba lay ñëw ndax fi mu toll 1000 litres am na yoo xam ne commandé naa ko muy junni litres am na loo xam ne danañ ñu ko livrer suba danañ ko indi fii ci jumaa ji fukki bidon dana ñëw yu 20 suba ñi ma koy eh, commandé wax nañ ko waaye loolu doyul ndax yor kii di wër kenn yor ko di pompe par loxo dana jël ay nit moo tax ñu xalaatoon wut ay appareil du doon yu yu rëy waaye yu dëgër la ndax inox la te dana def 800 millilitres boo ci sottee ba mu fees mbooloo miy jaar buñ ko tafee ci mur bi ni mu amee ci service yu mag yépp bu ñëwee ku nekk rek dangay ngay toq boo bësee bouton bi ñaari toq waddu nga raay say loxo jàll du am rang du am bustule ñu bëgg koo def nag ci bunt jumaa ji bunt bu nekk ñu def fa ñaar loolu nag yu woowoon naa la bi ma koy daataan dox ba am ci sa ndigal yaakaar naa daayira bi xam ne ñoom lañ koy jàppale te ñuy suñuy mbokki taalibe yoo xam ne lu ñu ne war nañ cànne yëgal nga leen ko mm-hmm. moo tax ñu ñëw te du ñu yem foofu lépp lu ñu xalaat ne buñ ko doxee ànd ak yéen ci loolu dana indi sell gi ci biir dëkk bi rawatina la péncum sëñ Touba mi ak fii nga xam ne mooy jumaa ji ak kër sëñ Touba fas yéene nañ ko ànd ak yéen ci sunu wërsëg ak sunu doole loolu ci lañu dox tey jii xëy nañu gendarmerie ak police bu fi am monteel nañ leen appareil bi te daan nañ leen jox ñoom itam produit bi pour ñañ fay woo yoon woo leen wala ñu am fay soxla wuti passeport wala wut carte d'identité bu ñu demee ku nekk da nga jaar fa ngay jaar nga def ko ba jàllale nañ ko ba gendarmerie bu tey sax Mbàkke it commune ba bëgg nañ ko faa def préfet it woo na ma ni ma nañ ko ko defal ci sous préfecture bi ndax mbooloo dañ fay def wàll googu daal ci lañu ñu bëgg a dox te di ci woo nit ñi xam ne mbir mii ñuy xeexal mbir mu bari doole la xamee sul nag fu mu jóge waaye gëm nañ ne ñun bu nu àndee nun taalibey sëñ Touba yi ak dëkke ñun ñi dëkke Touba gëm sëriñ bi roy ci tànk yi mu jaar incha allah feebar bi dana génn dëkk bi